tay Samba Bathily moo ma jël en tant que leader teg ma si wetam di ma yoon bi may dem ndank ndank pour jàppale président de la république son excellence kon tay lu luma xam ci politique grâce à Samba Bathily Diallo dama ko koy gërëmee. président dafa nexa nekkal dafa nexa andal parce que jeune la booba tay ma ngi ñaax jeune bi jeunesse bi di ànd ak jeunesse bi di liggéey di liggéeyal président goudi ak bëccëg parce que bo seetee président mi ngi fiy liggéey mi ngi ci liggéey bi kon tay amna ambition pour liggéey kon dañ ko wara jappalé jàppale te jeunesse bi dañ wara xol xool fi ñuy teg seen tànk kon tank en tant que kilifa bu melni président quatre présidents jaar nañ fi mais nañ xol président lim fi réaliser yeneen quatre présidents yëpp kenn réaliser ko fi te mi ngi am bébé di liggéey. kon dañ ko wara gungé ci ligéyam ken kenn parce que jeune la jël sama alal diko ci def pour jàppale président de la république jël sama fas-fas jël sama mën-mën jël sama lepp diko ci def parce que gox bima ma dëkk wakam mën nañ ma seedeel lolu depuis que ma and ak président de la république man ma ngi jël sama alal diko ci def jël sama pas-pas jël sama mën-mën diko ci def parce que président momako jaral du dara nak lu bëgg président de la république te yàlla tax son excellence Macky Sall parce que président ku neex a bëgg la ku neex a àndal la. coalition bi en tant que wakam Ngor Yoff ndaw yëpp jox nañ ma bopp sama ndaw dëkk déggal nañ ma ndaw wakam Ngor Yoff am naa fay nit de toute façon jeunesse bi tamit jox nañ ma bopp képp ku ma waxal mi may déglu kon tey bugguma lu dul jéem a gën a ñaaxaat jeunesse bi jéem a gën a waxtaanaat jeunesse bi ñëw jàppale son excellence si liguey bi jàppale son excellence si campagne ñu jëm ni parce que son excellence bo xolé ku jara a la ku jara a la te euh, jeunesse bi buñ la jeunesse bi jeunesse moo yor dëkk te jeunesse bi jox nañ ma bop amna naa ñaari yoon yo xamni ci gisante ak président mais suma sañon tay président dina ma boole ak ay nit ñi recevoir ma ñi tok ñi waxtane ma tok waxtane ak ñom parce que bëgg na audience parce que wax dëgg yalla boobu ba tey damay liggéeyal président te même buma amul audience tamit damay continuer ci liggéey bi rek parce que xamna né bis bi mës ñak dina mës ñëw ma toog président. buma ma opportunité échanger que président au moins dina mëna a ak jeunesse bi parce que jeunesse bi amna na lu ñu ma te jeunesse bi déggal nañ ma te wax dëgg yalla buñu échanger dina mëna jappalé sama gox mëna jappalé wa waa tamit jeunesse nek sama gox. ak jeunesse yi nga xam en tant que wakam Ngor yof comme suma waxe ñi ngi may deglu kon dina am lo xam dina ko mëna opportunité le euh président pour jeunesse bi jema gëna gën jeunesse bi jema gëna waxat ak jeunesse bi pour ñi gëna ñew président. manifestation bo ma ñëk def élégance parce que man ma ñëk def vidéo xamal ne len carrément ñun du nangu kenn du dugg wakam en tant que wakam Ngor yof liñ fi andil finna duñ ko nangu duñ nangu kenn di def manifestation en tant que Wakaam Ngor Yoff maa ko ñaan jeunesse bi ñi may ma ko bi ma defee élégance bi après jeunes yu bëri si lañ def vidéo yi seen quartier yi xool ne Khadim Cissé kat def na vidéo bu leen nangu benn jeune di dugg seen quartier di fa yàq di naka su dul noonu après ñu bëri si lañ ma toppandoo lu dëgg mais ñu gën a ñaaxaat jeunesse bi duñ nangu influence influence yi baaxul amul njariñ Nous ngi doon waxtaan ak yi di waxtaan ak jeunesse bi pour gën a mën président pour mën campagne yàlla may ñu ndam son excellence mën a gagné incha de toute façon ñu ngi doon waxtaan suñu biir di leen xamal président teral na Wakam, dañ koy nangu jël na jox 2 hectares 500 pour terrain football kon tay limay gëna gën ñaaxaat population wakam ne ñëpp génn jàppale son excellence parce que mérité na loolu parce que lim mu waxoon ak ñoom def na ko.